Lol, bam ñu ko joxe mu jox ñuko ko alquran nga xamne jang ak jangal rek la soxla ci barab bi ndax mom la fi doon def ginaaw bi mu yobbu donge ci kërëm xayna itam eh, ni adna ay di doxee kenn ku nek man nga am sa yene man nga am sa bëgg-bëgg am pas-pas ci dara demo di ki sansé lolou ko du caagin boobu da nga genn ci la nga waxon waye nak sun borom moy doxé la nonu àddunaam ci bir lolou nak eh, fani yalla rek xayna mu wonu telephone ngir ay ngant yo xamne dar nako ci ak njaboot gum wara taxawu tay itam ginaaw yalla ñoy seen seen seen dunduk aduna eh, ci loxom la ko yalla tek ndax itam njaboot la gum wara taxawu yoo xamne ne wax di yalla bañ ñuko waxe nun ñi buñ ko manon ta am ko it dañ ko ci wara fekk fekk si lool la jappale ko ci sun këm katan yalla dogal nak barab bi mo wax na da koy wéccéku ngir def ko ci eh, ndimbalul ñoña bi mu waxee loola itam dañe bu ma sañoon barab bi du genn say lox ndax keneen mënu fee dekké ku gën ku maam koo xam si ne li ngay def dina fi def lu gën li ngay def ndax amuñ lu ëpp alxuraan te itam yéen a jam amoon ba tey it yéen a la am xëy na nag yàlla ak la muy def waaye ne jàmm moom pexeem rek bëgg bëgga rek la am. ñu ñu ko waxee nag ne da koy wecceeku eh, ñu wax ak moom ci biir loolu ne ko ñaata nga koy wecc koo boo demee ba koy wecceeku te itam nee na mm, ngir balaa mu koy wax keneen moom faaw ñu ñu jéem ba tële mu door ko wax keneen loolu nag bu doon nun dong am nañ ci télé waaye nag mbokki jullit yi nga xam ne moomeelu alxuraan ci seen loxo la ko yàlla teg ndax suñu borom wax na ci alxuraan fastamsik billadi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun nga xam ne alxuraan jullit ñi ñoo ko moom ka cay jàngale ka ca nekk di jàngale day day dafa féete ak ak wàll rek waaye moomeelu jullit ñëpp la ndax bu doon kër gu ñuy dëkkee rek ngir sunu njaboot duñ ci sàkku ndimalul kenn suñu mbir bopp lañuy def luñ ci def xam xam ne def nañ ko luñ deful xam ne defuñ ko ci waaye lii ne barabu alxuraan la boo xam ne moom sunu moom moomeelu jullit ñi la moo tax bi mu waxee loolu ñu ne ko nun dey amuñ ko yoruñ ko dencuñ ko fen waaye jàpp nañu sunu borom moom yor na ko te itam mi ngi ci loxol jaam ñi moo tax ñuy sàkku ndimbal ci jaami sunu borom yi rawatina mbokk yi ak xarit dëkkandoo yi mooy barab bi nga xam ne boroom da koy wecc ko ci lu toll ci juroom benn million nu bëggoon képp koo xam ne mën nga ci dara njëkk mu ñuy rëcc ndax itam euh, soxla na ko ci diir bu gàtt boo xam ne euh, xaw naa jàmp lool waaye nag lum jàmp-jàmp suñu borom moom denc na loo xam ne kenn gisu ko mën naa nekk tey tey mën naa nekk suba kon daal euh, njagam nun la ko njëkk a wax te amaana bun yeexee tuuti karen mën na caa jot te buñ soñoon jot ci barab bi di fi liggéeyal suñu borom ci alxuraan di ci jéem a yar ay xale suñ kem kàttan loolu noo ci ciy dagaan mbokki jullit yëpp képp koo xam ne yàlla mën loo na la ko te li nga yor nga jàpp na ci suñu borom la jógee sa kàttanu bopp mayu la ko sa sa xam-xamu bopp mayu la ko donte yaa ko sabablu bu boobaa noo ngi ciy sàkku nga dimbaliñ ci ngir yàlla euh, baywun kenn xiibun kenn euh, képp koo xam ne wax ji ak agsi na fi yow ak koo mën doon ak foo mën nekk noon ngi la ci tàllal loxo te jàpp ne di nga ñu ci dimbali ngir jëmmi suñu borom ji waaw defoo ko ngir jëmmi Abdoul Ahad Jaxate mi wax ak yow waaye da koy def ngir jëmmi euh, alxuraan ji nga xam moo nu boole ngir jëmi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir jëmi suñu kilifa yu baax yi nga xam ne noo ko seeq te ñoom seen liggéey bépp di alquran mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ta di leen siyaara euh, di ñëwoon ci daara ji nga xam ne mooy daara Cheikh Abdoul fii ci Touba Aslam xayma yi dégg nañ kàddu yi mu wax léegi ci bërëb bi ak ni mu ci jote woon ak li ci tolleekuwaat muy yitte joo xam ne dam na ki nga xam ne mooy mooy borom bërëb bi ginnaaw loolu nag eh, ci la ñu woo waxtaan ceeg ñun ñu nit ñu ne ko suñ ko mënoon wax dëgg yàlla ñoo yëkkati 6 millions teg ko ci sa loxo nga jox ko ndax suñu yéene la waaye comme suñu doole matiwu ko li ñu mën rek mooy partagé ko ak mbokki jullit yi nga xam ne ñoom la suñu borom dénk wërsëg te nga xam ni daara seen mbir la loolu nag tax nañu ci tàllal loxo mbokk yi nga xam ni dañoo bokk ak ñoom si eh, eh, maanaam mbokk gi kon bu ko defee nuyoo bi dañ ciy jiital sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Soñbu Euh, di ko ci tàllal loxo bu baax ci liggéey bi nga xam ni liggéey liggéeyub daara ji daara ji yittewoo ko muy euh, bërëb bi ni ko war a sàkkoo ci jot ko ñu ngi ko bu baax a baax baax ngir mu ñëw jàppale ñu ci ngir yàlla jëmmi sëriñ tubaa ngir yàlla ak alxuraan ngir yàlla ak dëkk bi nga xam ni dañ fee gis taxawaay muy taxawaay bu rafet boo xam ni sëriñ daara yëpp ak ñi nga xam ne ñi ngi suivre daa yëg nañ ko ci yëg nañ yëg nañ taxawaayam ci dëkk bi ak ndimbalam loo xam ne mu ngi koy jëmee ci daara saa su ne ndax gis nañ bërëb yoo xam ne sax wax dëgg yàlla ay sëñ daaraa nga fa di jàngale te wóor nañu ni ci ci ci ci ci mbaaxam ak daxawaayam ci lañ ko jotee kon loolu gis nañ ko danañ ko seede bu baax a baax a baax su ko defee nag xam naa kii nga xam ni moom la ñu sàkkul ndimbal li di sëñ Abdou Jaxate mën naa ni mbokkam la mu ko jege ndax euh, sëtub sëñ Saam Siise la kon yaakaar naa kooku suñ ko waxee rek wax suñ son bu suñ saam ak suñ son bu ku leen xam xam ni ñu jege lañ ci bokk kon loolu dañ ci woo sëñ Abdou bu baax a baax a baax ngir mu ñëw taxaw ci jàpp ci te xam ne daara ji daaraam la du daara kenn waaye daaraam la moom ndax daara ju de tuddee Cheikh Abdoul Ahad am Cheikh Abdoul Ahad dafa jàngale euh, di sëtu Sëriñ Sam Cissé Sëriñ Sam Cissé di mbokkum Sëriñ Soy bu loolu ku ko wax xam ni daara ji daara ji Sëriñ Abdou Samad kon Sëriñ Abdou Samad ñu ngi lay woo ci daara ji bu nga ñëw taxaw ci ba mu a génn loxoy Cheikh Abdoul yi te des nekk daara yi alxuraan ba faw ci barke Sëriñ ci jegee tamit ah, ñu ngi ci tàllal loxo ku mel ni Silatu Rahim askanu Njaxate suñ ci jógee ah ñu ngi ci tàllal loxo ku mel ni Cheikh Abdou Bara Dolly honorable député ndax gis nañ ko ci social mu ci dox lu am solo rawatina di ko jëmee ci eh, dëkk bi fépp te loolu teg nañ ci suñu bët donte suñu jëflante moom demewul noonu waaye nag xam nañ ni mi ngi dox ay yitte yu am solo jëmee ko ci eh, dëkk bi te nag ndaw la loo xam ne ndawul dëkk bi la teewal ñu ci ensemble kon am nañ sañ-sañu woo ko ci li ñu def su ko defee tamit ñu ngi woo suñu xarit suñu Cheikh Thioro honorable député coordinateur Pastef bu Touba moom ñu ngi koy woo ci liggéey boobu waaye di ci woo tamit sëñ Mamour Sarr bu ma nee sax coroon nag xañ na ñu bari danañ xam di tax ma koy woo ndax moom it ndawul Tuubaa la di dox ci social da nekk jàmbaar tamit di liggéey euh, dëkk bi kon fa ñu woo ko ci liggéey boobu su ko defee tamit ñu ngi ci woo sëriñ Abo Jaxate di sama rak euh, ak waa marché yi nga xam ne ñoom la nekkal di ay xaritam ñoom it ñu dugal ci seen loxo ñoom it ñu ngi ciy sàkku seen ndimbal bu baax a baax a baax waaye ñu ngi sàkku ndimbalul tamit soxna na ma jigéen gay ca Ndakaaru ak ay xaritam ñu jàppale ñu ci bax ñu ngir yalla ak yonent bi ak alxuraan kon dal ñu ngi wo képp koo xam bi agsi na ci yow te lu bax ñor la te yalla dogal nga am wërsëg goo xam mën nga ko yëkëti def ko ngir yalla ak daara kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci wo ñëpp ndax wax dëgg yalla nok ko Cheikh Abdoulaye bi ki ko yoroon yéene doon bërëb bi di bërëbu alxuraan tayit dox na ci yitte am solo ndax ku la jox bërëb ay at nga wax dëgg yàlla am na yéene ci nga yor bërëb boobu kon nag su demee ba yitte def ko mu def lii mu def ah duñ def lu sant ko ci li fi jot a jàll tey ñaan yàlla suñu borom lii nga xam ne yéenam la tamit di suñu yéene mooy bërëb bi des ci daara ji des des ci loxo Cheikh Abdoul Ahad di nekk daara ba faaw bërëb boobu nekk ndax dañoo bëgg daara ji suñ ci suñ suñu yàlla dimbalee ba ñu lijjanti li ñuy lijjanti ba jënd ko mu nekk bërëb boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad mii du ko moom waaye njabootam duñ ko a doon waaye day nekk daara joo xam ne àla kulli àla ah, kulli day laay muy din day nekk loo xam ni lu sax lay doon nekk daara nga xam ne su njaboot ak njabootam sax bu ñu màggoon mënuñoo soppi bërëb bi def ko leneen lu dul te loolu su ci jotee dana ko wéree ci ay kayit yoo xam ni loolu rek lay mën a doon nga xam ne nekkatul lu nit mën a jëriñoo lu dul daara loolu nag moo tax ñu woo ci mbokki jullit yëpp képp ko xam ne vidéo bi dox na ba agsi ci yow ah nu ngi la ci tàllal loxo bu baax a baax xam naa dañuy joxe numéro yi nga xam ni képp koo xam ne am na loo ci bëgg a leerlu muy sama numéro numéro Cheikh Abdoulaye mën nañ ko jox muy sama numéro 77 616 03 31 77 616 03 31 waaye di joxe niw Seex Abdou Lahad 77 282 46 68 moom it soo ko wooyee dana la gën a jox ay leeral yu gën a leer ci li nga xam ne moom la ñuy la ñu kii waaye nag di ci woo way juru dongo yi nga xam ne seeni doom ñoo ne ci daara ji ñoom it ñu def ci seen yitte te xam ne bërëb bi seen bërëb la ñoom it kon noo ngi jéglu kàddu yi euh, tey ñaan rek suñu borom li nga xam ne yéen la joo xam ne am nañ ko ngir jullit ñi yàlla nañ ci yàlla jàppale bañ man bañ man ko te def ko ba nga xam ne ba ëllëgee tamit danañ gis leneen lu bokk ak lii tamit ñu mën cee taxawaat ngir yàlla ak alxuraan rek moo ngi tax di jóg ndax tamit dañoo yor kuréel goo xam ne dañuy dimbali ci daara yi kon nag suñu gisee daara ju am jafe-jafe wala mu lottu ci dara suñu warteef suñu warugar mooy jóg dem taxaw daara jooju def ci suñu yitte ak suñu kem kàttan ba yitteem jooju saafaraw te yaakaaruñ ko lenn la dulul ci jullit ñi jullit ñi kese ci lañ yaakaar te jullit tamit daara ji seen bërëb la ñoo moom ndax ku jàngalewut jaar nga ci daara daara sa bërëb la kon nu ngi leen ci tàllal loxo bu baax tey ñaan suñu borom ñu dugg ci bismillahi rahmaani génn ci alhamdulillahi rabbil lépp di cant ci barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waxoon naa ko dem ci ayab alquran ni wa maa yantiqu ah, anil hawa fu mu nekk ah suratu najmi wa maa yantiqu anil hawa mooy du wax ci bànneexam nekk noonu di def mukk mukk loo xam ne daa jekki-jekki rek xalaat ko rek mu jekk ci xelam mu def ko lu dul na nga xam ne nga xam ne bu dara masaan xew nii day xaar kàddu yàlla ba xam lan na ko ci yàlla digal mu door koo def bu bu yee loo xam ne euh, diggante nit ak nit la wala loo xam ne seen mbiri seen mbiri àdduna la daka daan suñu borom ne ko washaawiruhum hmm? washaawiruhum fil amri ak wa amruhum shura baynahum ok nga xam ne euh, booba suñu borom ne ko del diisoo ñoom bokk na sax li ñu leen tagg ñoom saxaaba yi wute leen aw saar mais suuratu shura mooy saaru diisoo lool nag mooy jëflante gi mu daan jëflante ak ñoom loolu moom faaw seeni xel da cay aje ak seen i xalaat ak yu xeet yooyu li nga xam ne nag moom lañu ñu war a jàng ci sam li ñu war a jëfante suñu diggante suñu borom loolu moom yonte bi amu ci xalaat la ci suñu borom sant dong la ci sañ a def lam ko ca wax loola ci sañ a wax lam ko ca def la ci sañ a def sayiduna muhammad jaamub yàlla tey ndawam lu mu yónni ci mbindeef yépp nit ak jinne ci li des ci àddina lu mu wax yàllaa ko ko waxloo lu mu def moo ko ko defloo la mu daa def ak lamu daa wax ñoo di sunna ak xadiis ku ci weddi dara lu tuuti tuuti ab yéefar la ku ci wàññi darra walla mu yokk ko ci ab saay-saay la bu bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm